delloo njukkal Touba ak waa Touba feddali këllëreem ak président Macky Sall mi ko tappal ndombo tànk def ko ministre conseiller taf ko ci wetam Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma dalaloon waa APR ci këram ci benn ngan gum leen dëloon jotaay bi nag li ko sabab du lenn lu dut dañoo àndoon di ànd di wut di campagne ba am mbooloo mu bare bare bare bare ñu dajale ko ci élection yi ñu wotel fi le président Macky Sall bi nga xamé né lolu jall na mu jël ci kóoluteem muy confiance am ak ci jàppale go xamné ne bëgg na koo jàppale dëkk bi

kon foog naa ne rafet na ma woo leen jëlaat loolu yi jébbal leen ko may sant nag ci nii nga xam ne noonu ngeen wuysee ndax ca suba ba léegi mën naa ne benn responsable bu mag bu dëkk ci commune Touba te nekk ci dëkk bi wuute wut ñëpp teew nañu ñi nga xam ne itam nekkuñu fi. kenn ku nek sa njabot kenn desul kon man nañu wax tay ji toutes les sensibilités dajé nañu lo loolu nak nek lo xamné ne lu reuy la lu am solo la ndax day wone rek ne ñu and liggéey ci lo xamné ñaruñul askan wi la lu mëna nek la kon ma ngi leen di gërëm ma ngi leen di sante ndax xamna naa ngeen def kóolute la yaakaar la ngeen ñaanal ma yàlla ba yaakaar ji ngeen am ba a tas ci samay loxo te rafet naa ci njortu ndax yaakaar du tase kër Serigne Touba te fii kër Serigne Touba la. daje bu am solo responsable politique APR yu Touba daanaka ñëpp teew kenn ku ne yëkkati kàddu fësal pëstéefam ci ànd ak moom jàppale président Macky waaye it dooleel parti bii nga xam ne moom mooy APR. man su ma waxu démb mooy suma ma waxu tey man disipline de partie laa xam disipline de parti nag mooy day am ku jiitu am ku ca topp ku ne xam loo man ku ne xam loo mënul loolu dina yombal ànd mbooloo li tax moo wax loolu mooy Serigne Cheikh dama koy yërëm parfois parce que coono bi nekk si politique ak ak ak ak ñàkk temps bi ci nekk mu nangu ko gàlloo ñun ñëpp dañ ko amel njukkeel amal nañ ko njukkeel lu wér a lii la président def honnêtement mérite la bu bàcci soog fàttali ko keroog ko publier dama ne ko rien d'extraordinaire ce n'est mérite c'est même se moyen même le mérite su ma ñëwee ci APR grâce yow la wax naa ko waxati kon nag yow Mbacke ñu lay ñaanal fi nga bëgg a àgg li des nag mooy ñun waa APR sañ si ab sëg suñu wan aw yoon wante fati des noo ko defati bëgg nañu ànd

fu nit mën a toll dina fa am équilibre te déglu la wax ak yow vraiment muy loo xam ne lu am am solo la ñu amoon problème mu leader waaye yàlla dogal mu ci def jéego yoo xam ne ku ne xam na ni sëñ Cheikh Abdou mu ngi def de plus kon nu ngi sant baax di wax ni soxna yi fi teew muy xale yi muy jeunes yi jeunesse féminine beeg ñëpp nanu jël exemple ci lu mel nii gën a yaatal dënn yi gën a yaatal dëkk bi

Abdou Ndiaye bu FNP force nouvelle patriotique ba ci Abdou Lahad Diop bu URD sëriñ bi ñu ngi lay féliciter di la encourager di la encore suñu engagement ci biir coalition bi nga xamni Yalla dogal nañu bokk ko. ñu gis ni le département de Mbacké fait partie des départements phares du Sénégal et que ku ne xam na ni n'eût été les résultats du département de Mbaké avec non 67 le candidat allait basculer au deuxième tour te dara pas ni bu démé deuxième tour dana gagné kon suñu 67 yoy dañu bëgg monsieur le ministre conseiller ñu bañatu ñuko xébal li ñu la défal. vous méritiez plus mais nak kuy wut lo am tamb tap japp ca tambali ñi wax ni nak nañu gëna taxaw nañu gëna taxaw les responsables du département de Mbaké. ndax la nga xam ni ñoom la yeneen jeunes yi am yeneen femmes yi am ko tey mérite la ci département de Mbacké jeunes yi femmes yi ñëpp am ko pour que bu ñu demaatee ba ci kanam ñu mën a xam ni kat fii lépp luñ fi mus a yaakaar wala luñ fi mus a dig la candidat Macky Sall ñu ko koy maye ngi fi. kon Serigne Cheikh sun ànd gin ànd ak yow sunum xel dal na ci sunu jot rafet na ci mboolem Cheikh si fi nekk sépp daal. ñi ngi ci sa ginnaaw ñi ngi lay déglu foo woote dinañ la wuyu loo santaane dinañ ko def ànd bi nag àndu pas la àndu ñoo yow ci naan la fii ngay jëm ak nii ngay def fépp foo jëm ànd nan fa ak yow ak fu mu mën a doon falu moom yàlla moo koy def nit nañ delloo si xalaat dañuy wax ne bu ngeen dara ka war a jiitu na jiitu te nga yii ñu toll parti bi moo ëpp doole ci région bi waaye ñàkk ànd moo tax mënuñ fi am résultat bu baax ginnaaw nag yàlla sakkal nañu nag njiit lu baax lu mën a rassembler mbooloo mi na ñëpp laxasaa yi jàppale ko ba ñu am li ñu bëgg ci élection yii ñu jëm parce que suñu fexee bay gañee président nii mu ko falee dana fal keneen fal keneen fal ci jigéen ñi bañ doyal kon Mbàkke yow koo woo mu wuy si la boo ñu woowee ngir Serigne Touba dañ lay wuy si ndax sa maam def na fi loo xam ne kenn defu ko waaye boo ñu woowee en tant que nag koo xam ne day liggéeyal dëkkam ba ñëpp ràññee ko si nekk homme de terrain di xeex ba njiitu réew mi ràññee leen nommé la ministre conseiller ci wetam boo ñu woowee tamit danañ la wuy si ndax loolu cër la du ñëpp ko mën a am kon ñëpp wuy si nañ la ñu ngi lay ñaanal nag ci sa barke maam. yéene bi nga am ba tax coono bi politique nekkee ak jafe-jafe yi politique nekkee nga ñëw soobu ci ngir defar dëkk bi xam ne da ngaa bokk ci ñi nga xam ne dañoo war a taxawal seen maam ci dëkk bi ak li koy développeel kon yal na la sa maam fay coono boobu nga am ci ndam yàgg ñi nga àndal. politique dafa am ay contexte am na contexte yoo xam ne bu egsee ñëpp danañ comprendre ne xëccoo jot na mais am na contexte yoo xam ne bu agsee ñëpp dañoo war a xam ne ànd jot na.

jappelé ko mën nañu gañee bi ndax ñun ñoy majoritaire buñ andé fañ wara andé soxna Aminata Touré Mimi jotoon fa envoyé ben délégation jotay bi amone ben benn fan laata màggal Daaru Xuddoos Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma yobbu won ay camion ngatch ndox mi nga xamné mo moo nekk ci dig-digal bi te digné ne dana taxaw saasu ne bu yenn jafé jafé yu ñu mel amé ci dëkk bu sel bi. bëgg nañu lépp lo xamante ne bi yittale ci dëkk bi. ak ci beneen dëkk bu wër fii ci département Mbacké bi wax naa ko barki démb bi nga nekkee ca ndox ma di ca liggéey nee naa leen fas nañu yéene jël en charge mbooleem problème yi nga xamante ni bi am na fi luñ ci mën a saafara ci suñu wàllu bopp danañu ko saafara luñ ci war a gaaral ay kilifa danañ ko war gaaral lépp lu ci war a àgg ci président incha allah dana àgg ci moom ndax nit bu fekkente ne bii daf laa doyloo wóolu la dooleel la la nga xamante ni bii moo war sa diggante ak moom mooy nga koy wax lu baax la nga xamante ne bii moom mooy jëmale askan wi kanam te loolu mooy suñu cër mooy suñu wàll kon ma jël engagement fi seen wet ci seen kanam di leen xamal ne fas na yéene ànd ak yéen ñu ànd dox dox yoo xamante ne bii jéego yi dëgër lay doon yoo xamante ne bii li may bëgg mooy ñu ne lii day musu fee am bu ko defee li nga xam ne moom lañ fekkoon démb di ko dund tey parce que fu yéenee bàyyi ëllëg mooy mooy askan wi mooy li nga xamante ne bii yitte yi nga xam ne war nañ koo saafara jafe-jafe yi nga xamante ne bii nit ñaa ngi koy dund te lépp luñ ci man ñu war ko def te président am ci yéene te bëgg ñu jàpp na ko ci ba lépp lépp lépp dañ buñ ci yàlla dimbale kon loolu mooy li am solo te loolu kat moo tax di sonn loolu moo ngi tax di yëngu ndax bu doon suñu jëm bopp dong foog naa ne du ko jar waaye nag jaamu yàlla ci jaami yàlla yi man damaa xamul lu ko féete kaw moo tax ñu nekk ci guddi nekk ci bëccëg te di leen sant bu baax a baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen ñi nga xam ne itam nag yéen a fi nekk démb ak barki démb sonn lool ci yëf yi lu ne ngeen daj ko ci yàgg naa leen ko wax li nga xam ne mooy sunu yéene mooy yéen itam seen yitte yi nga xam ne mooy seen si bopp lépp lees ci war def nañu ko yëg ndax président kat àcc na ndax jël na nit ci seen mu di ko wax la nga xamante ne mooy xalaatam ak lu mban di doon kon lu ci manqué day mel ne ci ñun la manqué waaye moom manqué wut ci côté kon loolu tam maa ngi leen ci tàll loxo yi nga xam ne maa ngi leen di déglu di len xamal ne fasna yene ñu ànd ko di len xamal ne amna lu bari lo xamante ni bi xagne ne naqaraw leen démb ak barki dem te tay ji suñu borom man nako safara te li gi nek yagut waye foog na ne fan yi kenn ku ne ci yéen gis na ne am na bes bees xamne amna yëg gi yokuna yite ji yokuna kon nak lolu buñ ko continuer bu soobee yàlla dara ngi dem ba kenn ku ne ci yéen comme ni ngeen koy faral di waxe dana gis boppam ci biir yëf yi te su boobaa bu ngeen booloo dajaloo nekk benn foog naa ne kenn du leen attan ndax kilifa mi jiitu wax nañ ko léegi fii ku leen ëpp doole nekku fi tasaaroo gi lu nga xam ne mos nañ ko fa ñàkk moo ñu ko xañoon te mel na ne fi doon nit ñi am nañ conscience ci loolu xam ne nag war nañoo ànd nekk benn joxante loxo te su boobaa foog naa ne kenn du ñu attan bu ñu yàlla dimbalee danañ fi am ndam ak résultat boo xam ne ñëpp danañ ci teg seen bët nga xam ne itam lii lu bees tàq la ndax aw doxee lu bees la boo xam ne indi nañ ko te bu soob yàlla dinañ ci dox